mbokki internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wax ni rek daleen ak jàmm fii seen chaîne youtube seen acti tv tey nag dañuy daal di ñëw yéen ci li gëna fës ci xibaar yi xibaar yi ndiki tey dinañ ko door foofee ci burkina faso ay ndaw yu dajaloo ci bërëb bu wër li nga xam ni moo di ambassade bu france amuloon fa ay tiir li di mel nag mi ngi xewee foofee ca capitale bu wagadugu ñoom nag li leen taxoon a jóg du leen lu dul yàq bi lépp ambassade dañuy wëyal xibaar yi nag ak li nga xam ni moo di football ki nga xam ni nag moo di international sénégalais bi woon di El Hadj ginnaaw ab émission bi ñu ko invité woon foofee ca Canal Plus ginnaaw nag ba ñu invité ki nga xam ni moo di El moom nag wax na ni yëkkat na tontu ay laaj yu ardu ci mbirum football moom nag wax na li nga xam ni moom la équipe bu Sénégal bi ndar ci coupe du monde bi ñu jëm moom nag di El Hadj Diouf wax na ni que équipe bi di Sénégal yéene moo di dem ba quart de finale nee na nag bu ñu ci génnee dinañ tëju xool ni ñuy doxalee ndax jongante la te li ñuy xalaatu mooy génn ci deuxième tour bi bu ñu si génnee nag dëgmal lii di quart de finale yi ne nag dinañ def seen kénte laay kàttan pour bégal li nga xam ni moo di ba réewub Afrique ak ñi nga xam ni dañuy bégal yi di football ba tey maître El Hadj mooy wax rax si dool di mi ngi xamle ni que équipe bi di Sénégal daa nekk si li ñuy woowee ab continuité ba génn nag ci lim joueur yi nga xam ni ñoo nekkoon ci kan bi ñu génn ak ñi nga xam ne ñoo war a dëgmal lii di coupe du monde bi dafa ni nag même limu joueur yi daal la ñuy daal di mi ngi xam fàttali ni équipe yi ñoo yem te dinañu xool fii ak coupe du monde pour indi meilleur joueur sénégalais yi ñu mën pour amal bi lépp jongante ci lu mucc ayib laaj nañ ko nag diggante ak kii di Steven Gerrard moom nag xamal na leen ni dañoo bëggantewul woon te àdduna la. dañ ko it ba xam jiite lii di fédération sénégalaise bu football bokk na ci ay projet wam mais fi mu toll tembe moom. équipe bee ko ñor ak nekk ci terrain bi ànd ak joueur yi ak staff bi ba li nga xam ni moo di équipe nationale bu Sénégal dina jëm kanam di daje nag fii ak 2025 ñu mën a xam ba xam kii di El Hadj Ousseynou Diouf bokkoon ci équipe nationale bu Sénégal di woon ab internationale sénégalaise dina bokk li nga xam ni moo di élection pour jiite li nga xam ni moo di pour jiite li nga xam ni moo dip équipe nationale bu Sénégal xibaar yi dañ koy wéy ak kawteef foofu foofee ca euh, Louga ab adolescent bu rend ab cousin wam ci kanamu yaayam Massamba Sène yoon teg na ko loxo ci saaga yu mu saaga kii di président Macky Sall ITV lay xewee kii di Adama Anouska Ba jugee na si télévision bile ubbi tey jàngi tey kii di abuba jot na amal lii di set setal pour amal ouverture bi ci anam yu mucc ayib kawteef ca Kaolack di ab bâtiment bu daanu ci moomoo bërëb bile mi ngi si yoon nit ñàkk seen bakkan détourné leen foofee ci sëkk yu tayif xibaar yi nag dinañ ko ndar keppe ak Babs Fall ginnaaw ba mu xëyee fësal ci journal bi ke ki nga xam ne moo di Barthélémy Dias mu ngi gën jege kii di président Macky Sall ndax bàyyam fa lay liggéeyee te jël ci alal bile di ci togg ceeb mbokki internet seen activité bi tey nag leen dañ leen indiloon ci li gën a fës ci xibaar yi di la wax ne di daje ëllëg waaye laata loolu leen di abonné te bu leen fàtte di appuyer lii di cloche bi pour di mën am suñu ay notification à la prochaine ci yeneen rubrique fii seen chaîne YouTube SENactu TV la chaîne au cœur de l'information